saanin ilaa yawmi diin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi seetaan télévision Futurs Médias gannaaw ba nu sante yàlla di julli ci sang-sang yu sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di nuyu bu baax kilifa diine nekk ci réew yëpp ak kilifa aade waaye mbokki di ziyaara mbooleem ahlul alquranul karim di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di amaan mbégte jàkkaarloo génn ci seen télévision Futurs Médias màggalu Touba édition 2022 mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ci wàccaayu loolee waral sunu teewaay fii ci dëkk bu tedd bii di Touba warawatina sax ci gox bu tedd bii di Ndindi gox bu tedd bii di Ndindi nag bu ñu ko duppee bu ñu ko tuddee xel yëpp dina dem ci Serigne Abdou Karim Mbacke ba moom Serigne Fallou loolee mbokk yi tey moo waral sunu jotaay bi ñu fas yéene séq ak moom wala jëlee ci moom ay kàdd yoo xamante ni kaddu yi jariñ askan wi la waaye balaa maa xuus gaydel dama lay bàyyi rek nga nuyoog téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi seetaan nga xibaar itam lan lañ mën a fekk ci biir fii nga xamante ni moo di Ndindi bismillah waa kay sëñ Mamour Cissé mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar am mbégte ak contentement tey ci ñëw fii nga xam ne mooy ndindi bu ñu tuddee ndindi nag comme ni ko sëñ Mamour waxee xel yëpp day dem ci Cheikh Abdoul Karim Mbacké ibnu Serigne Fallou ibnu Cheikhul Khadim yaakaar naa ay kàddoom day am solo lool ndaw ñëpp dañ koy bàyyi xel ba tax na Télé Futurs Médias déplacé ñëw fii ba Ndindi incha allahu rabbi ngir taataan ay doom ay kàddoom mën mën leen a jëriñ te xam nañ ne saa yu génnee njëriñ rek lay doon tey nag ñu ànd ak sëñ Mamour Cissé ñëw fii ci Ndindi macha allahu rabbi lépp di doon njëriñ ci kàttanu yàlla macha allah Mamour jërëjëf Cheikh Mbacke Gaynde kon li nga ko waxee noonu rek mbokk yi kon li ñuy def duñ tegaat baat dañuy dugg ci biir xool sëriñ bi wala ñu jéem a xool fan la sëriñ bi féetee ñu sàq ci moom ay kàddu yoo xamante ni kàddu yu njëriñ la bu ko defee ñu mën leen ko baaxee incha allahu taala. maa ngi leen nuyu bu baax di leen ñëw fii ànd bi nga xam ne mooy TFM maa ngi nuyu kilifa gi ngeen bàyyi ko muy Youssou Ndour léegi nag ci nekk mooy. bëggoon na ngeen fekk ma fu gën a yaatu ba waxtaan bi moo mën koo def ni ma ko bëggee waaye fi ne maa ngi ci xar-xar tuuti xar bi mooy waajal màggal gi rek ah lii nag li li nga xam ne moom mooy moom ngeen fekk nag mooy ndigalul Cheikh Ahmadou Bamba rek te Cheikh Ahmadou Bamba ndigal li li tax mu digle ko ah xaw ma def de waaye li ma ci mën a gis mooy bëgg na jaam ñi ñëpp am ngërëmul yàlla Cheikh Ahmadou Bamba xam na ne ngërëmul yàlla ku ko am sa aajo faju na ngërëmul yàlla nag ku ko bëgg di ko wut ñëw ci Cheikh Ahmadou di ko wute ci moom danga ko am ndax sëñ Touba ku ne xam na ne ni mu mel ak li mu doon yàllaa ko def ci moom kon li tax yàlla def ko ci moom da koo waayoo yàlla daf waayoo si Ahmadou Bamba moo tax lim def ci moom mu def ko ci moom yàlla na kum waayoo ku ñëw ci moom di wut ngërëmam mm-hmm. da nga ko am fii ku fi ñëw ci Touba di wër ngërëmul yàlla mm-hmm. di ko wut ci Cheikh Cheikh Ahmadou Serigne Touba Khadimou Rassoul mm-hmm. yàlla na la ko defal yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw indi seen tele bi it li ñëpp bëgg rek ngeen bëgg muy ngërëmul yàlla rek tax ngeen def ni ngeen def yi ngeen def taxaw ci naaj weeg ak jël waxtaan yeeg ak jël lépp bëgg ngërëmul yàlla rek tax yan leen ko yàlla defal bëgg nañ nag bu baax ci yéen parce que xanaa dañoo bëggoon rek defal ñu benn message boo xam ne ci jeunesse bi lañ koy koy jagleel waaw ku nga gis ne tolluwaay jamono ni mu demee ëpp ci li tudd ndaw ñi ñoo koy def moo xam ci internet bi ak ñu mel yi nga xamante ni jeunesse bi war nañ ko am rawatina bu ñuy ñëw ci dëkk léegi nag màggal gi dégg ngeen li sëñ Mountakha wax ñëpp dégg nañ ko. sëñ Taxa sëñ Mountakha mi nga xam ne lépp lu wax rek njëriñ la. dégg nañ li mu wax lépp màggal gi nag du jàllaw jàllaw màggal gi. jàng alxuraan la ak xasaayid ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi ay muy ay salaatu ala nabi noonu la ñuy dal toog am yar am teggin di di di sant di def ay ay toog yu baax ak ak ndox yu baax nit ñi di ko barkeeloo loolu mooy màggal gi waaye jàllaw jàllaw yu metti doo jàng alxuraan doo jàng doo sikkar doo def dara sëñ bi wootewul lu mel noonu léegi nag nañ ko defee noonu rek nañ ko màggale noonu ni ko sëñ bi bëggee nañ ko màggale noonu rek jamono bi ñu bare bi nag ci gone yi danañ màggal si gone yi nga xam ne dañuy màggal si ak ñi mënta ñëw ñoom ñëpp buñ ñëwee fii nañ fi jëlee ak bu ñëw di yar ak tegin ndax jaam ñi yàlla daf leen bind ba noppi bëgg leen moo tax ku bëgg a yàlla mi leen bind bëgg leen danga leen di teral di leen jàmmal di leen yërëm bu leen toroxal jaam ñi kenn waru leen toroxal kenn waru leen a mettital kenn waru leen a yéene lu lu baax rek ku bëgg a jubóog sa boroom daal day leen defal jàmm rek di leen di leen yërëm di leen teral di leen màggal ku ko def day da nga jubóog yàlla te ku jubóog yàlla day am nga tawféex kon nag maa ngi leen di gërëm baax yàlla leen yàlla fay gis nañ ne kàddu gi day day daa am solo lool ci réew mi te fi mu ne chauffeur yi dañuy xaw a doy waar ak doxin wi doon ne mën nañ leen a jox benn message boo xam ne rek dina am solo euh, ndax euh, boo leen waxee dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax nga xam ne dañuy dawal pour ñu daw ndànk waaw chauffeur si yéen gan yi kay mhm. lu baax li ñëpp bëgg rek moom lañu war a bëgg moo tax war nañoo woye falal ñi ñëw seeni seeni paas mm-hmm. tey daw ndànk mm-hmm. kenn bañ a gaañu ñuy dawal ci yar ak teggin mm-hmm. fu ñu toll seen bërëb ñu di ko teg seen borom rek di ko xool képp koo xam ne sa borom yaa ngi yaa ngi yaa ngi teg sa bët ci moom rek doo doo def lu lay doo def lu lay juumloo kon nag ñu ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñu ñëw ci jàmm ak ak ak nit ñi. dellu ci jàmm. lépp daal lu ngi koy def ci ndigalul sunu sëriñ man sëriñ boobu mooy sama sëriñ ñu ngi koy def ci ndigalam waaye maag sama sëriñ ñëpp nag sëñ Muntaxa mooy sunu sëriñ waaw kon yàlla na yàlla dimbale waaw sëñ Tuubaa waaw te metti lool te yàgg lool moo waral màggal gi moo waral màggal gi moo waral jumaa ji waral xëlëf mel ci baayu sëriñ Saaliwoo mooy borom Gabon sëriñ Bamba doomi Mambuso mbakke nit ku ñuul ba ngeen di ko naw ci lu wér ndax tubaab yi ah. dañ ni nu woon xeetu jaam lanu kenn du nu naw sëriñ Bamba alhamdulillahi allazi yujaasi mana sanu bil xayri wal mabaad